Euh, loolu la ma président de la République ak premier ministre sant ma ñëw liggéey si ak yu nek fi si ministère mu nek ministère bo xamanteni ñepp xam nañu ni ay kangam yu mag la buñ ma président de la République euh, nommé euh, mercredi passé si gouvernement bi joom dënk ma poste bi sama pap nga xamanteni euh administrateur le fonctionnaire haut fonctionnaire la lu ma ah dem borom xam-xam ministère bu ëpp borom xam-xam loolu la wax mu ne ma ministère bu borom xam-xam la jox comme comme indication donc ma ne loolu suñu su biti bi ni ñun dañu fi dafa am ay borom xam-xam rek trouver euh, solution ak moyens pour que nous mëna yegg fu ñu euh, président de la république moy ci Sénégal Sénégal euh, émergent président de la république bu Sénégal ba Sénégalais mom premier ministre Amadou Ba la aussi wax Sénégalais que mom la continuer ci at

ñu ngi wax affaire yi euh, ressources naturelles yi mooy suñu contrat minier contrat pêche contrat gazier ñu ñu waxtaanaat ñu trouver ay amna ay marge te man xamna borom xam-xam yi suñu togué ah, man lu mu a gis ci biti ñom ci biir ñi ngi ci biir mën nañ ko mëna gis pour ñu trouver jox état bi jox ay marge de plage budgétaire ba nga xamné ñun dinañu mëna outat ay copar. wala am ay euh, moyens supplémentaires pour mener am de choc pour yegg yegg donc lolu mo waral euh, euh, euh, ñun ñu wax ni dañuy suñu priorité yu ñu waxtaan ak ak suñu collaborateurs pour proposer président de la république ak premier ministre lors xamanteni dina Euh, dina mën a euh, tax ñu mën a yegg ci seen yaakaar ci ci koom-koom